14 rouge baa ngi ni 14 jaune baa ngi ni lu ci mënti doon lu ci mënti doon Omaro na nga ko njar ndax xale yi toog seen papa di seetaan xale yi jigéen ñi toog seen duma ko njar non njar ko kon zirik ko duma ko njar sama yaay ju baax ju ñuy wax su koy na Lamine Faye sept heures du matin la ma woon na ma bu Boubacar Diallo noonu may jàmm kenn du ko njar ne ma Amadou ma ne ko naa mën dama bëgg boo demee ca plateau ba bul ko njar sama yaay nag su fekkee Lamine Faye moo wax a ah Amadou mu ana gëléem bi ban gëléem laaj ko gëléem bi <laughs> Sukayna Lamine Faye laaj ko nga laaj salaam gëléem bi déedéet Sukayna Lamine Faye lañ wax laaj ko ne ko Sukayna ana gëléem gi du ma ko laaj du ma ko laaj ndax gëléem gi fu mu jëm baaxul ñaw du ma ko <laughs> ñaw jërëjëf alaaji Boubacar Diallo ñu ñëw ci kaw téef bi nag waaye di ci bégal bu baax alaaji Moussa Sène mi nga xam ne tubarkàlla mooy journaliste bu mag bi Léopold Sédar Senghor yàlla yàlla guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax waaye dam mbégte bu baax ci Modou Faye Modou Faye dama bëgg ngeen di tee nga xam ne mooy suñu sponsor leader tee flécha na ñëw léegi ñu bàkkante lu baax pag bu njëkk bi alaaji Boubacar mooy tubarkàlla macha allah taaw bi nekk ci kër gi te yàlla dogal am ci kër ko oh. oh sure man ma waa ji wooyu barke Sëriñ Bamba dama jooy tudd ne ci kër dib taaw mënaloo sa bopp dara ñaar fukk boo naanee kafe amoo ko da ngay génn kargaay ci bopp koñ bi ku dugg jëlub kaas bu doon romee nga ko sa waay ma barkeelu nekk ci kër gi nekk ak say doom yi baay ak say doom yaay yàlla dogal sa feeñ ci ñoom yàlla mooy dogal mm-hmm. du taawa war a tekki du caata war a tekki du ki ci digg bee war a tekki yàllaay tekkil jàmm ndeysaan yàlla miy dogal dogal kat caat wa moo tekki ki mu juddu moo yor kër ga mooy fay ndox ak courant luyaas mooy jënd saabu ñuy fóot mooy def lépp mooy yor gone yi fay seenu jàng moom la ñu jël tekka kaw caat ba moo mujj doon taaw taaw ba doonub caat moom bu ñu ko defoon caat rek yom na waaye yemu ca dañ koo cof di ko négliger di ko ñàkkal fayda póot mi yére yi muy sol sax moo wax ak man yére yi nga xam ne moom lay sol muy tilim bu jàkk bi ñëwee war a fóot dañuy seppi ay yéreem <coughs> ah, ndax amul jom dañuy seppi ay yéreem ndax mënulul boppam dara mënulul waa kër gi dara loolu muy dund nag naqari ko loolu metti xol ba banam ko fajee mooy naa ni doom xaru dee yàlla na ko yàlla yërëm dafa mujjee gaañu waaw ah, dafa mujjee gaañu tubarkàlla bi mu làkkoo ci fan yi weesu nga xam ne yàggul dara juróom-ñaari fan yi sax matugul hmm? la ma xaritam bu ko jege woo ma na ma sawaay mi la doon woo di la wax kaw tee fi day yëf mënatu koo muñ jaan lay naan doom wuy jël suñu borom may ñaan way jur yi nanu sagal doom yi te yàlla tax mm. may ñaan war jur yi nanu xam ne doom bi tedd ak bi teral la yàllaa koy programme waaye du ñoom du doom ya lii nag dafa bari ci kër bari na ci kër yoo xam ne boo yorul loo joxe ataaya mënoo warga mënoo suukar mënoo naan mënoo mënoo lekk mënoo naan mënoo def dara ci kër gi yàgg xar ci kër gee yam xaritam may wax ak man ba ne ma tudd am na ci kër gi saa waay yëg ko ma ne ko wax na ma ko de may gëw ko woon mu ne ma billaahi maa ko mën a seere moom daal daa toog ba yàgg rek nit ñi ñëw di nuyoo di ko romb bi dugg saal bi di nuyoo di ko romb bi dugg saal bi mu xew ñu ne ko diw la tuddal ndax ñàkk dara ak ñàkk mënal boppam dara tax na ñu génne ko ci njaboot gi ba tax damaa ngi ci lancé appel di ñaan way jur yi boobu jëf day ci way jur yi la njëkkee doo ko tàbbi ci doom yi ba tax na na way jur yi sagal seeni doom ne ëllëg du añ du waaye lu mat a sédd mm. tax na loolu ñàngat bi ma ci am rek mooy na way jur yi yërëm doom yi te xam ne tekk yàllaa ko yor te ngay sax àdduna dafa tëradi sax. loolu nga xamante ne tey moom moo ñàkk suba mën na am. keneen ñàkk moom àdduna dafa tëradi nañuy euh, waajur yi. fote nañ waaye moom tamit fote na. Mm-hmm. ndax xar moom. Mm-hmm. diine nangu ko. ndax toujours doomu aadama dund lu gën a metti ci àdduna. Mm-hmm. te jarul xaru. ndax ñun ay jullit lan xaru safara rek. xaru safara. Oh, metti na waaw. àdduna ak lu metti ñoo fi yam nga am naqar ñaari yoon. am naqaru àdduna am naqaru àllaaxira. bala nga ni naam mbay mbay fekk yaa nga fa. waaw xale yi muñ leen. waaw ku leen jurul yërëm leen. day metti lool te nag saa yu gisee nag. Mhm. nit ku mel noonu saa yu muñee kër ga yaa koy mujjee ci. yàlla ñëw di laaj ndeysaan mooy li ndeysaan loo doon wax. dafa solo demal lu lox naa ko ba pare. ndeysaan jërëjëf Jéema sàmba benn ponk bi ki topp nag mooy ah, kawteef bii moom dafa yéeme dafa doy waar waa nag daf maa woo ci groupe whatsapp mag boobu nga xam ne mooy bul ko njar waaye daf ma ne lii ma lay laaj damaa bëgg nga joxe ko ci plateau bi gars yi wax ma ci seen xalaat mm. te doyul sax ci ñoom bëgg naa it nga wut benn xaafisul quran bu mel ni El Hadji Mor Sey oustaz mu wax ci xalaatam wax la la ci diine nii mm. bi mu duggee Espagne ngi daal di koy jàpp daal di tëj ci kaso bi bi mu génnee ci kaso bi di ko jaayante di ko ñafe di ko liggéeyante affaire yi lool ci moom waaye li yàlla lay dogal mooy ci ginnaawam bi mu demee juróom benn weer xamuñu ci lu mu ne dañ koo jaale ne faatu na daal di woo mbokk yi mbokk yi daje nee leen kat sunu waa ji da jàlloon ci géej gi dan dem Espagne ci Barça Barsak bi yàlla mujj na ko moom ba tax na day nanu ko saraxal te ñaanal ko gaa yi rey nag yi rey xar yi daal di baas daal di defar nàkkeeg li ci war lépp ñu daal di koy saraxal waa ji def ci fukk ci kasa bi fukkaat génn di ko jaayante juróomi at pour dajale lu mu ñibbisee ñëw ñibbisi fekk jabar jam fi bàyyoon ak ëmb wu ndaw ba fa bàyyoon doom bi judd na ba am 15 ans waaye li doy waar mooy dafa ñëw fekk ci ginnaaw jabaram ay yeneen i doom yoo xam ne doom bàyyi ba ndax bi mu yàggee àll gisutuñ ko dañ jàppoon na faatu na fekk deewul ci kaso bi la newul maanaam frère moo ko doon frère am ndax jabar ji képp wane na ab mbaax moo xam ne ci kër gi bi ñu gisatulee waa ji jàpp ne làkku na mënut ñoo nangu mu génn kër gi ñu daal di koy jëy may ko rakkam loolu du bàkkaar dara ci léegi nag rakk ji fi may wax yow mooy seeg jabar ji ba am na ci ay doom ah, léegi nag waa ji après 15 ans bi mu ñëwee daa fekk doom baayam di jariñoo jabaram ba jur ci ay doom léegi nag mu woo ma ne ma damaa bëgg nga wax ma ci sa xalaat laajal ma xalaatu waa plateau bi laajal ma xalaatu benn aafisul Qur'an moo xam ma lan la dina wax. jarul mu ñëw ndax loolu man naa ko. Mm. bisimilah papa salaam. ndax kooku. Mm-hmm. dañ koo tàggee ba pare. Mm. ni génn na àdduna. Mm-hmm. xaw ma nag fukki at nan nga ko mën a nekkee même ci kaso. même boo nekkee kaso am nga droit. téléphoné di téléphoné maa ngi bind ay leet mais bu ne tàggee nan la. ba yàpp ni euh, faatu nga. kooku doon war a génn ca kër ga te am fa njaboot war nañu mën a xool ci njaboot gi kenn koo xam ni war na ko mën a donn mm. loolu lislaam nangu na ko dina nangu ko allahumma salli ala sayyidina léegi moom ñibbiseem léegi ñibbiseem ñibbiseem waaw résultat bi lan la ñëw na mi ngi dund eh. gis nañ na deewul loolu coow amu ci waaw parce moom joxewul signe de vie mm-hmm. gars jàpp nañ ni fii dee na ah na àdduna première chose mooy da joxe euh, joxewul signe de vie. Mhm. bàyyi woon na fi soxna ak i doom. Mhm. jéemul lijjanti est-ce que doomam boobu mu ngi lekk wala mi ngi naan. est-ce que soxnaam soosu mi ngi dund ou pas. Mhm. xam nga loolu yëpp lijjantiw ko. ba keneen koo xamante ne mënoon na ko. mënoon na ko ah. parce que jamono ji fi mu toll nii. ak technologie bi ni mu avancé. mondialisation bi ñuy dund. prison nekk mën ngaa bind lettre bu dul lettre sax. mën nga woote. am nga droit woote. kon doomu baay ji jëriñoo ji jëriñoo jabaram ji jëriñoo jabaram dañuy laaj moom. waaw léegi moom lu muy def alaaj Hadj Boubacar Diallo lan mooy tax. day muñ rek te seeti day muñ waxtaan ak juste rek waa këram. xam ndax soxnaam soosu moom est ce que cofale bu mu amoon ci moom ba njëkk mi ngi am ci moom ba léegi. amul mais mais mais d' leen ma terminer rek c' est à dire que tamit loo gis waxtaan la je pense. tey moom bu demee fenn nekk fa ak diir deful signe de vie ñu tàggee ko defal ko ay sarax yaakaar na ne génn na àdduna jël keneen teg ko feneen pour man manque de communication moom moo ko waral. Mhm. tey bu ñëwee defaat signe de vie defaat surface taxawaat pour man je pense que explication war na am ak waxtaan pour xam ban terrain la ñuy trouver est ce que boobu. tas am na ci est-ce que moom mayoon na soxna si baat yooyu yëpp aussi foog ñu xool ko. parce que parce que les avis daal partagés donc après dañu allah benn imam bu wax ci wala moo mm. li kii wax les avis sont partagés. Mm. ci YouTube bi ak ci kii gars yi joxe seen xalaat. voilà jërëjëf jërëjëf Papa eh, Salam. Euh, warga wi tee flasha tubarkalla bu ma noppee bu ma noppee ci kaw téef bi ñëw ci moom beneen bokk bi ci mujj nag tubarkalla alaaji Boubacar waaw sama yoon bu mujj bi ma def euh, Paris bi ma demee jàng yokk xam-xam gi ci wàllu technologie ak wàllu télévision audiovisuelle dama mës a toog ci benn restaurant bu ñuy wax raxu la Pointe des Almadies hmm. dafa lekk subu kànja am waaju ma fekk am yóbbante bu ma joxoon waaye aw moom fu ma ko waxee ndax émission bi ma daan def booba cant gi mënu ma ko foona wax ndax tem ba ànd ak loolu ma fàttalam ma waxoon waajoo gi nag moo waraat sama numéro ba am ko ci groupe ba sabul ko njar daal di may woo na ma la ma la yóbbante woon ba tey maa ngi koy jooy muy sama naqaru xol te man na maa rey mën naa faatu damaa bëgg nag nga leeral ko Sénégalais ba ñu xam ne ñun moodu moodu yi ñi ngi dund lu ni mel fii ci bitim réew xam nga lu mu hmm. takk jabar mu ne ci réew mi mu jom loolu nangoo liggéey di góorgóorlu di ñafe di góorgóorlu di ñafe di góorgóorlu ñafe ba dajale boo jaar ci yoon woo xam ne mën naa fexe jële fii jabaram indi ko bitim réew mu jaayante loolu ba fexe fa mu war a jaar yëpp mu jaar fa ba jabar ji fekk si ko gannaaw ba ko jabar ji fekk see yàlla dogal xale bu góor bi amoon nañ këyit bi nu séyee ñoom ñaar daal di sokkor loo mbàcc mi jolli doom daal ci feeñ bi ki doom feeñee bi mu juddoo mu daal di dugalal xale bu jigéen bi utal koy këyit keroog ba këyit yi génne ca ëllëg sa la gëj a gis xale bi ci la ko gëj a dégg ci la gëj a xam ci lu mu ne ba tey jii may wax ak yow. mais du sëyu mbëggeel. keroog ba kayit yi génne laa wax. ba kayit yi génne keroog keroog la gëj a gis jabar ji ba fii may wax ak yow. maslaawu ci defu ci dara maslaawu ci waaw maslaawu ci seet ci kóllëre seet ci dara. beneen cas bu mel noonu it ñu signalé ma ko ci Belgique moom daa indi jabar ji ba mu ñëw bi kayit yi génne jabar gi da koo yóbbu ci yoon. Hmm? waaw daaj tas sëy bi dugal ko ci kasu bi ba pare jariñoo alal bi te ay doomam. Modou Modou yi nag sonn nañu. ñemeetul takk jabari Sénégal fii may wax ak yow. gars yi léegi leen rek lañ des. wala wala boog ñu fi am jabar sax dañuy tiit yóbbu seen. jabar wóo wóolootuñu très bien. wala ñu fi am jabar dañuy préférer bàyyi seeni jabar ci kër mm-hmm. ci réew mi mais ñematuñ ko yóbbu parce que dafa bari ay jigéenu Sénégal yoo xam ne seen i jëkkër da leen takk nekk Europe jaayante ba ñu fekk si leen keroog bañ demee ba jekku ba toogu keroog lañ toroxal seen jëkkër yi dugal leen ci kasa bi ñii ñu war leen ñii ñu bàyyi leen ñi liy jëkki-jëkki rek changé dëkk changé numéro ñetti weer gis sa jabar ne Genève di si nag te yow yaa ngi ko bàyyi woon Paris dëgg la lu metti la te Omaro noonu la amee tam ay soxna yoo xam ne ay faatu faatu lan mm-hmm. jëlee fi seen borom kër yóbbu leen mm-hmm. ñu war seen mm-hmm. ñu war seen borom kër dëgg la dëgg la noonu la amee noonu la amee aussi ay moodu moodu yu jugee en Europe indaa xaalis xeemeem xale bu ndaw. Mm-hmm. jël ko takk ko jël ndawam yàq ko divorce ko delluwaat Europe. oh sur qui compte. sur qui compte. <laughs> sur sur qui compte. personne. ab trafiquant de personnalité la. Mm. c'est un criminel c'est un bandit mais lu mu def lu mu def di mbubboo aw sant wu tedd wu baax muy santu Sëriñ Bamba Xaadimu Rasuul euh, Mbàkke Balla si buri sëñ Mbàkke maaram maam jaaram ci poroxaan xaadim borom nit ñi la mbubboo na sëtam la kenn xamul fu mu jóge nekk fii ci Mbuur wut appartement am wooteeb sëriñ <laughs> kompaloo ki xaritam ñu dooni taali bi ñu dooni bëkk néeg muy laa jaat ak jàpp ci gone yi mbuur yi di bàccul suba ngoon guddeeg bëccëg ku mbàcc mi di nga ñibbi mu waajal keneen 22 heures ñëpp naan sëriñ bi ci koñ bi sëriñ bi ci koñ bi mun a day yàq deru sëriñ bi sëriñ bi kenn mën ko yàq bi kenn mën ta mhm. yaay jéem yàq deram ba yàqoo ca nga jéem a defar deram ba defaroo ca kookuy xaadim borom jàmm yi kenn mënu koo yàqal mhm. man baara sa nin la wax biraasu man yu baari sa mun taxi man baari sa daan képp ku léew toog man buur yàlla ngay bëral ab trafiquant de personnalité di tëdd di mu boo def sëriñ Tuubaa gi di def jëf ju ñaaw jooju ba yoon teg ko loxo damay ñaan nag yoon nanu ma koy indil ndax kooku dama ko soxla. loo koy def. alaaji Boubacar. Mm. kooku na ko yoon yóbbante dama ko yittewoo. njar ko ndax damaa sasu. njar ko damaa sasu yaa wa jëy xeex ak moom xeex bu dul jeex du jeex du jeex du a jeex du jeex du jeex du jeex a jeex du jeex du jeex baroo du jeex a jeex damaa fas yéene xeex ak moom xeex bu dul jeex ma nga ca loxoy yoon yoon dina ci def la la ca dawal jëli ataay ji te ñëw léegi waaw waaw dawal jëli non dawal jëli ay wayu leen ay wayu leen bu ngeen dee bayu su ma demee ñii yaa wa jëy débat bi dëgg la su dee buy waa c'est jaara ngay ngay bu mujj bi lan la jeex na jeex na pogg mujj bi waaw pogg mujj bi pogg mujj bi bi laay tijjee ah tubarkàlla macha allah ndaw si oh, nag euh, euh, ndaw si ndaw si tàggat ak njëkkër yi bii nag yaa jëy damay wax damay wax jigéen ñi nekk ci néegu sëy bu nu tàng ba sëfe ba wax lu nu war ta wax mm. tas na kër yu bari après ndaw si muy wét turku di jooy ak di rëccu daa joteeg jëkkër ji liñ jote mooy lan doom ji mu tuddee yaayam te ñu sekk ku ñoom ñaar la dóor bi mu ko dóoree jëkkër ku ne xam ne ne bàyyi daa bëgg doom rawatina buy bu jigéen bi daa sax ci xolam bi mu jooyee waa ji daal di am naqaru xol ci dóor wi mu jug dal ci kawam ne ko bàyyil xale bi koy dóor nag xam naa ndaw si da koo guuxaloon ndaw si daal di koy def attroupement def ko coow loo xam ne koñ bépp pàq daw ci bàyyil xale bi koy dóor ah da koo da ko fanaanoo rek da koo guuxal waaye li yéeme ci cooli mooy bi ñu sàmmarloo ñoom ñaar jokkalante ay kaddu ba jarami tàng mbooloo mépp teew mbokk yeeg xarit yeeg dëkkandoo yeeg am di jàmm ndaw si dafa ne waa ji yow kii waroo wax ci moom bu fekkee da nga jàpp ne yaa ko jur nax nga sa bopp kii du sa doom oh allahu kaw teef xam nga waa lu mu def bi ko ndaw si waxee loolu <laughs> merci Omaro merci Omaro. nii la def merci Omaro. daan fay jaaree mu ngi suñu borom. kon jigéen ñi yal na ko yàlla yërëm te yëxunu. jigéen ñi ndaw see ko doom bu am sept ans. sept ans ngay yóbbu école tuddee ko sa ndey di def ci moom li war ci moom lépp. bis ñëw coo am ñu ne la juróo ko dee seet na moo tax boobu kooku bu doon man ma def leneen loolu dee ko salaam dañuy faral di wax ne jigéen